sa démb xam sa tey xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey ñuy waxtaanee Blaise Diagne muy député doomu Afrique bu ñuul bi njëkk ci jamonoy tubaab yi. Blaise Diagne ngi juddoo Gorée 1872 fukki fan ak ñett ci weeru octobre baayam di Ñoxor Diagne ndayam tuddoon ñaaña Anthony Prera baayam nag Galaay Mbay lu ko tuddee woon ab xaritam waaye turu Blaise wi mi ngi jóge ci ba mu duggee école ci école bee ñu tuddee école frère Plomel ba nekk ca Gorée ca noona sax la amee turu katolik dugg ci diine katolik ginnaaw kii di Adolphe Crespin nga xam ne da doon doomi tubaab bu xees ak jigéen ju ñuul ca gore doon xaritu baayam jëloon na ko ci këyit def ko doomi boppam kon turu Blaise yu foofu la jóge waaye Blaise aka mënoon a jàng école primaire de taxawaalu fa dafa génne ami lijaasa ana fuñ ko yóbbu xanaa France ex en province ngir mu matalum njàngam waaye yàggu fa wérgu yaramam moo ko ko mayut woon Blaise daal di dellu si Sénégal ñu yóbbu ko ci école bu tudd école Duval ca Ndar foofa nag la mottalee njàngam mu digg doomu 1890 raw ñëpp jël pee nekk major ca promotion at ma ca topp mu def concours douanier daal di cay dugg ñu daal di koy yóbbu Dahomey nag mu def juróomi at 1892 la fa dem ba 1897 ñu daal di koy yóbbu Congo 1897 ba 1898 mu daal di dem Réunion daal di dem Madagascar dem Cayenne dem Guyane def fa ñetti at ca tukkeem yooye sax ñu ko daan affecté ca la taseeg ku tedd ki Serigne Touba ca Gabon boo ko fa tubaab bi yóbboo ngir faagaagal ko Blaise daana àgg ak moom ci di ko jox daa jum bindee ak këyit yum bindee loolu la seqoon ak Serigne Touba ginnaaw bi nga xamee ne jàppante na ak tubaab bi muy liggéeyal ñu naan ko yow tubaabe ba mat Blaise Diagne nag cala la génn daa di démissionné ñibbi si senegaal door politique ci 1914 at ma bu njëkk ba tàmbale. te noonu nag la ne dafa bëgg a nekk député Sénégal ci assemblée nationale France. ah ginnaaw nag bi mu xëccoog tubaab yi xëccoo bu metti ginnaaw campagne électorale bu métti Blaise jiitu ci juróom-ñeenti candidat yi nga xam ne ñoo àndoon ca tour bu njëkk ba ñu tegaat ca boote ñu tuddee ko second tour mu daat leen di raw 10 mai 1914 waaye lu rëy la def ndax ana ku Blaise jiitu ab tubaab num tudd. maître hamburger ana kum jiitu doomu nit ku ñuul ak tubaab dëkk ndar di François Carpo bisub keroog àdduna mel na luy tukki ndax bu njëkk nit ku ñuul ku dëkk Gorée nekk na député ci assemblée nationale France ndax buñ koy seetlu keroog la njëkk ndax 1902 François Carpo lañ fal mu faluwaat ñaari yoon waaye la ko jiitu 1879 ba 1902 ay tubaab rek ñu xonq cur ñoo doon toogal nit ku ñuul ca assemblée nationale France. kon nag Blaise ndam loola mu am dafa am lu mu jeexal mooy nooteel gu tegu ci nooteel waaye ana ko way way yaa ngi fi ba léegi man ngi daan way naan xar mu ñuul ma mbëkk na xar mu weex ma Blaise Diagne député yàgg nañ koo dégg 1915. Blaise daa di xeex ba képp ku juddoo ci ñeent communes yi di Rufisque Dakar gore ak Ndar nga am sañ-sañu am kayit nekk ab français 1918 yamul rek ci liggéeyu député bi ministre bi nga xam ne mooy ministre bi yor bi daal di koy fal def ko commissaire mu toogal fa nag république Afrique sowu jant loola nag may ko doole lool nit ñi ragal ko mën nañ ne sax Blaise jaañ te lu sukkandiku ba fexe ba daara ju mag jii ñu doon jàngalee fajkatu yaram yi muy docteur yi ci Afrique soowu jant moom bokk na ci ñi tax mu am 1918 waaye lycée Faidherbe bi 1919 ca Ndar Blaise Diagne bokk na ci ñu ko fi indi. liñ mën a jàpp daal mooy étudiants yu bëri war nañ koo wax waaw góor rawatina Lamine Gueye Isaac Foster Léopold Sédar Senghor ak biraago Diop ndax matoon na leen njaatige te seetaanu leen woon kooka mooy jaañ a ana luñ mën a jàpp ci Blaise jaañ député la woon waaye bii nu demee ba 1920 ah yeneen doomi nit ñu ñuul ñi ne kii moom boppam rek lay liggéeyal tubaab bi la fi nekkal ne kii tubaab bi lay jàppale faaleetul nit ñi ko faloon ca Paris mu am fa gone yoo xam ne danoo am mbootaay guntu ñu tuddee Ligue de défense de la race noire maanaam mbootaay gu mag gi nga xam ne mooy xeexal der bu ñuul te Lamine Senghor di doomi Sénégal bokkoon ca ñu ko jiite ñoom ñoo ne Blaise Diagne du nangu mukk muy wéy di liggéeyal tubaab bi doon mbindaanam ngir di leen sonal ba képp ku nu bëgg ñu jël la yóbbu la nga dem xeexi première guerre mondiale ah kii di Martinique dëkk Martinique di René Maran nga xam ne moo bind téere bu mag boobu di Batouala nga xam ne dafa xulook tubaab bi ba gedd démissionné ci administration moom daf ne Blaise yow de da ngaa jël nit ku ñuul daa di koy jaay ngir sa njariñu bopp Blaise daa di mer porté ko plainte ñu daa di dem tribunal waaye Blaise du ñooñu rek la ñàkk ginnaaw bi mu lëkkaloo ak tubaab yi nga xam ne dañuy wutum koom di wut xaalis nga xam ne waa Bordeaux lañ ci 1923 ah ñu bëri dañ ko wan gannaaw ana ku ci njëkk ku ca gën a ràññeeku xanaa du ko toppoon ci moom ngemboon ko yóbbu woon ko tëngeej wane ko fa Ngalandou Diouf Ngalandou Diouf da ko wan gannaaw ba xeex ak moom jàkkaarloog moom ca élection député ya 1928 mu daan mu daan ko 1932 mu daanaat ko lamin Gueye moom it nga xam ne ku ko gënoon a bëgg Blaise Diagne amut daal di ànd ak ay xaritam ñu daal di taxawal lii di fédération sénégalaise du parti socialiste français waaye nag keroog ba Blaise taxawee ne tubaab bi ku la neex na liggéey te bul fay kenn yaa moom ñëpp travail forcé maanaam liggéeyloo nit te doo ko laaj coobare te doo ko fay keroog ba Blaise taxawee ne am na yoon tubaab bi def ko dem nag ca ndaje mu mag ma amoon ca Suisse ca Genève ca 1930 taxaw fa daa wax ne loola yoon la keroog la ko adduna wan gannaaw keroog la ko nit ku ñuul wan gannaaw keroog la ko afrig wan gannaaw. ndax bu nuy seet sax dafa mel na Blaise Diagne ci talu carrière politique am buñ koy seet daanaka tubaat bi la gënoon a nekkal di ko jàppale que muy jàppale askanam ak i mbokkam mooy keroog Blaise jaaj ba muy judd ca gore fukki fan ak ñett ca octobre 1872 ca Gorée Blaise doomi ñoxor jaañ ak ñaaña Anthony Pereira baayam tuddee ko xaritam booba Galaay te ñu mujj soppi aw turam Adolphe Crespin defoon ko tuddee ko Blaise kenn yaakaarul woon ne ba muy falu day war ñoñam waaye Blaise képp kuy politique wan nga ko gannaaw waaye Blaise képp ku yor syndicat wan nga ko gannaaw ndax booba nit ñi ana luñ bëgg mooy Afrique moom boppam ana bëgg mooy tubaab bi jóge fi Blaise taxaw rek na day ànd ak tubaab waaye 1933 ba mu jotee Blaise nag wér-gu-yaramam di sooxee keroog la ñàkk am jàmm ñuy dugal hôpital ko génnee di faj ak ragal waaye 1934 fukki fan ak benn ci weeru mai ca la Blaise Diagne génn àdduna ñu daal di koy indi dakaar bëgg ko suul nag mu metti lool ndax catholique yi xamuñu ne ba xam catholique la ndax wane wu ko ca église ba jullit yi xam nañ ne dootu jullit ndax génn na ci diina ji fun ko suul nag jafe lool moo tax tey jii boo rombe ci corniche bi romb ci corniche bi bay àgg place du millénaire bala ngay àgg ca zawiya Cheikh Omar Foutiyou Tall da nga ca bunt armeel yooya ab bàmmeel bu ko buñ ko uufal foofa lañ tëral Blaise Diagne te tubaab bi di gouvernement français jëndoon suuf soosa daa di tabax daa di ko fay denc ndax catholique yi xamatuñ ko woon jullit yi xamatuñ ko woon Blaise jaañ ñaar fukki at doon na ko député Blaise Diagne xarnub ñaar fukk mooy ki gënoon a fés ci nit ku ñuul Blaise Diagne moomu lañ doon waxtaanee tey xam sa démb xam sa tey moom mi nga xam ne bokk na ci ñi tax école médecine bu njëkk ci Afrique de l'Ouest mu am fi waaye bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a taxawal nit ku ñuul ca assemblée nationale France kooku mooy Blaise Diagne moom lañ doon waxtaanee moom galay mbay xam sa sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la factorie bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut